annexe bi ne dafa am ay samba boo yu duggoon ci kër yaayu Ousmane Sonko euh, ca Ziguinchor est-ce que mënuñu nettali mbir yi nañ la demee. wala bi incident yi amee aéroport bëccëg la woon. ba ñëpp ñibbi ñëpp defe ne léegi agression boo xam ne moom la Ousmane Sonko subiroon au niveau de l' aéroport jeex na. ku nekk reer dem tëdd diggante une heure du matin ak deux heures du matin mu am benn commando boo xam ne se composé à peu de cinq maires bi ay ponkal ay gros bras donc ñooñu ñoo avec l'intention d'attaquer la maison familiale mooy këru ñoom Ousmane Sonko HLM Néma mais comme yàlla du seetaan yeneen affaires yi ñoom bala ñuy egg foofu mu am fuite donc bu amee bésir bi amee ñu ñuy dem jël par anticipation seen matukaay alors noonu la yi ñëwee bu ñuy bëgg commencé di attaqué rek ñu gis ni am na équipe de riposte am na sécurité bu fa nekk rek ñu lal li mu nekk ay daqante léegi ci biir daxante yooyu parenthèse gars yi dañu mën a daw nag mu am kenn si ñoom ko xam ne ponkal la dafa njool ba pare jàpp kooku moom la gars yi jàpp bi ñu ko jàppee indi ko kër gi daf ko genre interrogatoire pour laaj ko lu tax mu ñëw kan moo ko fa yebal ci yan condition et alo alors li gën am solo joxe na tour commanditaire bi deuxièmement wax na ñaata la ñu ko fay pour mun a bokk ko commando bi et troisièmement joxe na justificatif bi pourquoi moom mu accepté loolu parce que daf ne moom amul liggéey te borom njaboot la dafa doon wut simplement lu muy am pour pouvoir entretenir sa famille loolu moo indi mu accepté yooyu alors noonu la ko gars jàppee donc on était vers deux heures du matin quartier bi yëpp jóg affaire bi jël beneen ampleur mais lu gën a am aussi beneen importance mooy beneen portable am boobu au cours des échanges dafa tojam ndeke dafa yoroon deuxième portable deuxième portable boobu à la surprise générale moo sonné bu mu sonné ñëpp bëgg xam kan la ndeketee la sécurité publique moo boobu bi ba ñëpp xam ni kan moo ko woo ci au responsable de la sécurité publique boobu noonu la policiers yi ñëwee ak DMS ñëw nangu ko ci loxo waa ko ji. waaw ci loolu est-ce que da ngeen ko laajee yéen wax nañ leen kan moo def mbir mi. joxe na tour bi mais man duma ci dugg pour le moment mais boo demoon te Ziguinchor ku nekk xam na ko parce que c'est populaire mais man personnellement dama ci prononcé parce que boobu joxe na tour bi devant tout le monde. joxe na montant bu ñu ko jox aussi wan na ni effectivement la mission consistait à venir et à brûler a raser tout maanaam Ousmane Sonko bu fa nekkoon il serait carrément purement et simplement assassiné voilà parce que gars yi dañu ñëwoon avec la volonté de tout raser et de tout détruire loolu mooy contrat boo xam ne moo leen tax a ba ñu ñëw ci kër famille Ousmane Sonko alors que boobu fekkoon na Ousmane Sonko jël na avion ba ñibbi donc maire yi fa nekkoon ak ñoom ñoo waroon nekk les na ñu lakk kër gi wala ñu sujet purement et simple ay onkal nit la ñu et en groupe te xoolal heure bu ñu choisir diggante une ak deux du matin nga xam ne heure boobu ñëppay nelaw. waaw est-ce que par rapport ak euh, attaques yi nga xam ne Pastef mi ngi koy dund ci Ziguinchor yéen yéen a ngi jël seen i matuwaay. waaye ñu ngi jël seen i matuwaay mais comme nekkul bagarre rangée ñun on sur sur le qui-vive rek parce que lan la première fois contrairement lu presse bi di naan bagarre entre les partisans de Sonko et ceux de Doudou Ka c'est doon dem pour wuyu waa UNACOIS ñu agressé ko. deuxième bi aéroport lan la Sonko dafa doon préparé pour dem aéroport pour jël avion pour ñibbi Dakar foofu muy traversé am na foo xam ne foofu la ñuy contrôlé di garantir les permis pour auto yi di jàll pour dugg aéroport ay xale du ka jël seeni xeer sànni ci kaw auto mooy deuxième agression troisième bi ay nit def une heure du matin deux du matin dem pour songu këram te yàlla def ñu jàpp nit ñooñu ba ñooñu nettali nañu tout lépp la ñu wax police bu muy ñëw fekk ñu foofu ñoom ñëpp xam nañu ni affaire yi yëpp leer na tout est très clair avant ñuy yóbbu xale bi te xale boobu pour sa information ñun bu ñuy def suñu meeting moom bokk na ci ñun ñu ñun ñu ñu jëloon sax pour renforcer suñu sécurité parce que ñoom loolu seen liggéey la c'est pas des moom du militant ku ko fay rek mun na la liggéey la lu mu la sant ñun keroog bu ñuy am meeting jëloon nañu ko pour mu bokk ci sécurité bu war a assurer suñu meeting yi di def mais koo xam ne vingt-quatre heures auparavant ñu ngi ko doon assurer sécurité doy na waar. Abdou Sané ngi lay sant di la gërëm ma fàttali ne yow yaay coordonnateur u Pastef Ziguinchor merci. merci maa ngi lay gërëm.